loolu mooy muqaayada loolu lay jàngale ci maqam seetlu mm. bu baax mm. lii ab baat la mm. nangam lay firi nga fexe ba jox ko maanaam ay baat su ko defee da ngay dagg daggit bii gis ne mën naa firi nangam nga dagg daggit bële gis ne mën naa firi nangam nga ne ñaari baat yi mën na maa nangam maanaam jumla sangam loolu mooy muqaayada <laughs> seetlu bu baax a baax ak feloo mm. axun mbokk mm. taara naaw mm. feloo dégg nga waaw wala axbaarun ay xabaar axbaarun ay xabaar axun mbokk baara lamb na loolu mooy muqayyada wala abtaalun abtaalun mooy bàyyi njool la abun bàyyi taala gudd na loolu mooy muqayyada loolu bu baax a baax waaw naa la yéen laay jëm la loolu baatu abtaal ah, axbaar dama la ko wan alaamaat ah, ah, waaye axbaar moom ñëw na fii sax waaw na nga ne bàyyi njool la abun taal abtaal <laughs> loolu la waaw waaye jàng day tumuraanke ji waaye boo ci defee yitte mën a génne lu ko mel. mën a génne lu ko mel mën a génne lu mel. lu baax a axbara xamle na alxaarisu xaaris ibnu hammaam xaal mu ne anaxtu yësaloon naa bi maltiyata ci dëkk bu ñuy wax maltiya maltiyatal bay ni waru way tàggaloo xam nga doxkat bu ci loolu laa doxee ba ak bu ñuy wax hmm. waa kii ba dee sama gamaka hmm. ah mal a aji fees la hmm. mel xay ne ci kaye ah te booba na wax dëgg maa ngi dara ah loxo tëq na bu baax fa ma def ijji raye sama aada mus al mus al waxtu woo ma bi aji maltiya xasaaye sama xet an atawarrada ba ma roota ma mm. waridal marahi rootuwaay mbégte yi mm. wa atafayyada ak may rëbbu mm. sa waridal mulahi bay dàngani waxi xorom yi ba ma faagee comme maa dara nag ah may dem ci barabi bànneexoo kaay yi de dem itam ci barabi ñuy waxtaanee mbiri adab bari lool lu may fekke lool ndax gannaaw su ma jógee maa ngi yóbbal maa ngi war dem dafa ma yomb falam yi buut nii faatuma bihaa ci maltiya hmm. mansaroon ceetaan hmm. wala masmoon du caageen dégluwaay hmm. mu mel ni amul luñ fa seetaan te sama bët te tegewu ci mel ni amul luñ fa déglu itam te déggu ma ko wala xalaa féexut min nii ci man malaabun foofu waay wala mattawoon du caageen sàmm waay mel ni itam amul fu nit ñi dajee te du ma fay dem barabi fowukaay yi barabi barabi wutukaay dara yi hatta iza lam yabqa ba nga xamee ne defatut nag lii dama ñaxal fii haa ci maltiya marabun haajo wala desatul itam fi sawaayi ci sax bi haa ci maltiya marhabun xamimteef ba ma demee benn dëkk bi daal su fekkee dañ si ko kumpale woon xam naa ko bi loolu amee amat jublu naa li infaqi dahabi ci dundale wurus surtiyaayel mm. sahabi ci daa ci jënd ay waajay mm. dama préparé pour dellu mm. ma génne sama xaalis jënd yu may delloo falamma ak maltu ba ma matalee al ihdaada xadu ba mu waajee ba waajay xàgg wa tahaya a tejot adanu laxas min ha tukkee ci maltiya aw kaada wala mu jege ña jot xam ne daal jógee jot na ndax waaj nga ba pare dema def mm. wala boog daanaka jot na ndax waajaay bi sori na lool mm. raaytu gis naa tisaata rahtin juróom-ñeenti nit mm. dama gis juróom-ñeenti nit ñoo xam ne xasaba oo jënd nañ xahwatan sàngara wala kafe gis nga bu baax a baax wala kafe ba oo te ñu kowe rawwatan domo dama gis am mbooloo moo mm-hmm. xam ngi toog ci barab bu kowe mm-hmm. xam ne seen ak naan nga naan mm-hmm. wa dama satuhum te seen nooy ak jikko xayrul alxaas mooy tënk géndeku te nite gi nite da ko wane ci ni ñande ñu mu neen tax na ñoom la ñëpp di te seen nooy ak xayrul alxaas mooy tënkëb gendeeku yi bu fukkaatuum seen mboolante xulwatul alfaaf aji neexi baat la seen waxtaan itam waxtaan wu neex la fa naxawtuhum ma jublu leen ma dem ci ñoom talaban ngir sàkku li munaadamatihim ci naanu xaaleeg ñoom laa li mudamatihim waaye du ngir seen ma dem ca ñoom bëgg a toog ak ñoom dégg nañ melee mm-hmm. mooma yóbbu ci ñoom mm-hmm. waaye du xaari seen naan gara ndax mm-hmm. am naa lu ma jàpp wasaafan ak soppu bi mu maa sajatiyam ci jaxasoog ñoom laa bi sa jaajatiyam waaye du seen weere du seen kaasi weere seen buteeli weere nim sa jaxasoog ñoom xamanteeg ñoom waxtaan ak ñoom mooma yóbbu foofa waaye duut nim si seetal xamem seen kaas fala hmm. man tabamtu ba ma nasoo xaasirahum daaji fukkeel seen hmm. waar haydu te ma mujj mu xaasirahum daaji xarlaaleeg ñoom hmm. wajattuhum fekk naa leen am naa xallaatin ñi ay ndox dajee am naa xallaatin loolu la jublu rek mooy ñoo xam ne fañ bokk jenn baay mm. te bokkuñu ay ndey mm. bu dee na ah mooy ñoo xam ne fañ bokk jenn yaay waaye bokkuñu baay bu dee am na ah yaa ni mooy ñoo xam ne ñu bokk yaay ak baay kene lim jublu rek mooy bokkuñ dëgg-dëgg bokkuñ daal wa qadaaifa falawaatin tey ñu ñu sànni yi xàll mm. ñoomu neen mm. te dëkkuñ mm. dañoo dox rek daje illaa am na luxmatal adabi ndare yàppu adab xat allafat moo boole samlahum seen mboolo ulfatan nasabi boole xaskan waaye nag lu mel ni bokk jubluwaay bokk gëm-gëm moo leen boole bañ mel ni benn lañ ñoom ñëpp seen jubluwaay wàllu adab la seen gëm-gëm wàllu adab la moo leen boole bañ mel ni ñoo bokk hmm. te bokk gëm-gëm mu ngi bokk ci asbaabul ulfa tuuti moo def hmm. hatta lahu ba ñu feeñ hmm. wasaawat ñu yem wasaawat te mu yemale bay na moom ci seen diggante fi rutabi ci daraja moo waral déggoo gi hatta lahu ba ñu feeñ mithla kawakibil jawza mm. daf mel ni biddiwu jawza mm. ay biddiw la ñuy wër nii hand mm. booba daw tëju feeñ kal jumlati da mel ni jumla al mutanasibatil ajsa bu dee gis ko naan doji xaaj ñu jàng loolu dañoo jumla bu xam ne ay baatam dañoo wax ko naan doole dañu déggoo torom daal kon ñu jàng loolu waaw asbabul ulfati bokk gëm-gëm ci la bokk ñu boole ay lu gënoon ni benn ne faa fajani ma gis mbooloo mi ni ñu déggooyee faa fajani bégloo ma alihtidaaw gindeeku ilayhim jëm ci ñoom ma trop daal ci ma leen dajjal waa mat ma a taaliya taaliya alladi bi nga xam ni adla ani fenkal na ma xale ci ñoom ma kontaan ci bi ma am ci dajjal leen taaliya mu nit mooy bi fële bi di dëgg da wax dara ci nit ki naan mooy ay xibaaram yu mu xam ñoom bu ñuy def ay tanabuwaat loolu la ñuy tuddee taaliya ay ma am sens daal wa ahmadtu ma sant a taaliya taaliya alladi taaliya bi nga xam ne adlaani fenkal nama alayhim ci ñoom waja wa tafirtu ma xarat ufiidu di babal bi xili sama banti maysar maa xiday fànd ak seeni banti maysar ma dugg ci waxtaan wa nekk ci ak ñoom ma laaj kalima tooñ waa tasfiyu may saafar la hoo biriyaahihim ci seen xañ yu neex ya laa biraayihim waaye du seen sàngara ma kontaan ci jataay bi torop ndax nite gi ma fi gis waaye duut naa yu bakkane yi nag mm. ah duut yu bakkane ya mm. waaye nite gi ma fi gis waa taswir may saafar la woo biraayihim ci seen ngelaw ya wala seen xeñ neex ya mm. la biraayihim waaye dut ci seen eh, sàngara ko mm. hatta addat naa ba joxe ñu mm. sujoonul mufawadati cëli mufawada mufawada mooy ay xeeti waxtaan sujoonul mufawadati cëli waxtaan ila tahaji jëm ci jamante bil muqayyabati ci muqayyaba hmm. xam nga wax day indi wax ak sëy ubi sëy yëpp yus këru hmm. wax day indi wax hmm. ci lañ demee ba waxtaan mi xàgg ci ñiy jamante loolu ñu naan muqayyaba muqayyada naa la ko démb la mooy da ngay gis baat nga ne baat bi nangam lay firi waaye nga dagg ko nag daggit bi nga gis ne mën naa firi lii ba dem mën naa firi lii nga jox ko maanaam jumla hmm. loolu la ñuy wax muqayyada hmm. al abtaal ay jàmbaar hmm. ma al abutaala xam nga mën na loolu ka qawlika ni ki wax sa isaanayta boo jubloo bihi ci moom alkaramaat ni ki tey baatu alkaramaat ay tedanga nga ne maa ana lan mislu mooy kem waxta jënga ne hmm. anna mu nelaw faata wéyul hmm. ana ban baat nga mën a mu jox la maanaam nelaw moom faat na hmm. mooy alkaramaat alkara gëmentu maata dee na xam nga loolu lay jox loolu lay jox loolu loo di feeñal ak suha bidiwu mm. suha bidiwu tuuti la bu naqadee gis mm. wal xamara ak weer mm. neex na gis léeg-léeg nit génn lu naqadee seetlu see nit génn lu neex a seetlu wana nii ñiy kotti a saw ka dëkk wa samara ak meññet léeg-léeg nga sonn lool ci xelaat du am dara ah léeg nga xelaat am wa bayna naxnu diggante ba ñun nansuru mm-hmm. ñu ngi firi mm-hmm. alqasiba aji xees mm-hmm. malan mu xees wa rassa ak aji rab wa nansuru te ñuy firi ba tey mooy ñiy wane assamina aji foor wal rassa ak aji xemaay waaw waaw waaw mu ne ci biir liñ nekk ci muqayyada boobu hmm. léeg-léeg nit génne lu rafet léeg-léeg nit génne lu feebal hmm. wa bayna naxnu diggante ba ñun hmm. nan suru ñu ngi firi alxasiba maran mu xees wa rasa ak ajirab wanam sulu te ñu ngi génne mm. asamina aji foor mm. mooy lu xam njëkk lu lu waluure mm. wal xas ak aji xemaay mooy lu fooradi ci loolu waxa waxala tabbina xale na ci ñun seexun góor gu xam ne xas sahaba dem na xibruhoo meloom wu rafet wasibru ak taaram mm. ñaari baat yi soreewuñ mm. dafa mel ni sibru mm. dafa nekk saagan ci hibru wa baqiya ta des xubruhu xamam wa sabruhu ak nattum lu genn góor xalsi boo xoolee jëmm ji da nga xam ne doxatut gune ndax dara jiye fi ndaw ji waaye nag boo ko dégloo da nga mag mu jar de déglu la kalam mag dëgg la fa masala mu taxaw hmm. moom góor googu hmm. mu soola man taxaw ak koo xam ne hmm. yas ma wa day dégg wayan furu te muy seet góor gi def taraf taxawinu ku ñuy seetlu ci ni ñuy defee ku ñuy déglu ci ni ñuy waxee ah mu taxaw mu soola man taxaw ak koo xam yas ma wa mu dégg waaw ku ñuy comme dañu déglu comme ni ñuy mm-hmm. waxee. Mm-hmm. Mm-hmm. te muy for. wayal li nga xam ne nan suru danañu ko wisaare. ci biir li ñuy wax léppin nag. mu ko takk ci xel mi. ilaa nu fidat ba fa gées. al ak yaasu porte-monnaie yi ba kenn ku nekk kem la nga jotoon a lax baandoo ci sa xelaat. génne nga. kenn xamatul la ilaa nu fi daal ba bëggee ala yaatu kiis yi mooy porte-monnaie yi waxaasa te leer al yeesu naagu ibnul xasaab bokk na ji mu xol mu ne xasaasa xaqu rek la ñuy wax te nu mu baax ba waaye nag xiyaas nag bañul xasaasa xasaasa al yeesu naagu bañu ko de xam lu tax nag mu xaye ko moom xam lu tax mu waaye xiyas nag bañu ko moom falamma raa ba mu gisee ijbaalal xaraa'ihi njàcca xilaat yi lu ne ba gis ne xaali xilaat xilaat yi dañoo mel ni jaasir mënatuñoo génne dara waaw falamma raa ba mu gisee ijbaalal xaraa'ihi njàcca xel yi mel ni xel yi dañoo jaasir mënatuñoo génne dara dégg nga dégg nga wala ijbaal al xaraayi taxaw ak xel yi wayig da almaati yi ak sooy ak sooy ak aji bëgg wal maa yi ak aji tànk xam nga dëkki arab yi dañoo jëfe woon ndox lool suñ gasaan teen ba àggal mm. jël doj bu mag a mm. ba dugal ko ci teen bi mm. tëralee ko nu xam ci digg teen bi lay nekk suñ bëgg a nit la ñuy dugal mooy dugg ci biir teen bi toog ci doj bi ñii ko yor baag yi ku yor sa baag mu tànk duyel la nga ñooti waaye teen bi du xam ndox xam ni ku ci biti yor baagam rek mu jëmm mu duy su ko ci biir nag mm. di jël baag yi mm. di ko duy ñii ñoo di muy génn mm. mooy maa ex ki ci biti ñii ko duyal muy wëgg mooy maa tex tey nag kinaaya la ci kii laaj ak kii tontu kenn ci xamatul li muy wax jamaa boole na adwaalu adyaaloo ay lafitam wa walla naa mu méngale ñu xasaaloo sàllu baatam dafa jóg rek. Hmm. jël ci mbagaasam. jox hmm. ni gannaaw ni mu war a def. ah jamaa na ak yàlla ay lafitam. wala naa te mu méngale ñu xataaloo sàllu baatam. wa qaala mu ne maa kullu sawda di lépp lu ñuul tànga wala kullu sawda di lépp lu weex tànga tànga tànga. ma léegi daal tuddoo taxut nga bokk ci gaay léegi daal tuddoo ko rek taxu koy do xam koy do rek bokk alors ma kullu sawda de lépp lu ñuul tamratan de tàndarma ñuul sawda de tàndarma mm. waaye wala kullu sahba de lépp lu weex xamratan de sàngara xam nga xeeb na leen trop xaaris mm. ne fantalaf naa ñi haju bihi ci moom intilaqal hirbaayi kem haju kakkatar mm. bilan waadi ci ibanta mm. ñun ñëpp ñu langamu ko téye comme dëgg mm. wadarat naa ñu sadd bil ahdaadi ay mëdd doona wijati yi wala julwaayam taxaw ci kanamu serkel ko na ko doo demee wa qul naa ñu wax la woo ñaal ko ne ko inna dawa ab soqi naka garab ak xarxar ayyuhaasa mooy bu ñëwee fat ko yow soo ñu tanee ba di ñu xeeb mm. lay xoyofal xeebel ga mm. mooy lëg ñu tanee nga jëriñ ñu ci mm. waaw ñu tanee ba wane war yeb lay tax yebel ga xoyof ci ñun mooy jëriñ nga ñu ci lëg ñu tanee loolu daal mooy mën waaye nit ku lay xeeb te te te te farewul la fenn mm. kooku bu ko jox benn respect te lu mu la xeeb rek yem ko ñaaral mm. waaw bu ko bu ko bu ko sédd benn cër mm. waaw loo bëgg a def mu la ko tax a def waaw bu xam da lay xeeb te farewul la fenn kooku kooku bu ko respecté nen na nen na bu ko respecté nen na nen na ndax yeewu ko waaw yeewu ko bu xul naa ñu wax la woon ñu ne ko inna dawaa a soqi naka garaba xarxar ayyuha sa mooy bu ñëwee sat ko way la boo ko ñëwul fal qisaasal qisaasa tànnal fayu tànnal fayu waaw wax ñu loola neex rek dem ci allahumma salli te wane woo lu ko jar loolu foo koy xamee du do de wax ñu loola neex rek dem ci allahumma salli te wane woo fi luñ ko muñee loolu loolu foo koy xamee du fii de loolu lañ ko wax. donc yow day am ful hmm. wala tat ma bul xemem. Hmm. fiyaan tajraha ci bu nga jamaat rek. Hmm. watatraha nga sànni. watul hira nga yolal. alfatxa xar-xar bi. watatraha nga dem. jëm ñu bañ de naaj. nga waaxu rek dem. joxe benn ndàmpaay. kooku mënu ko am. dina ko waax a baax. fallawa fallawa mu leem henaana hoo gogam hmm. raaji han daaji wëññeeku hmm. mu xam li nga wax dëgg la hmm. mu ma jasama mu toog mooy mu sax raasi han daaji sax muy mu goor mooy mu jékki bi ma kaani hii ci baram raasi han daaji sax mu def fa dikka toog wa mu ne amma iza stasartumuni dal bu ngeen masa koo jéqi mm-hmm. bil bax si ci gëstu mm-hmm. fala ahkumu danaa xatte xugma mm-hmm. suleymaan a xatte suleymaan fil xarsi ca mbay ma waaw su ngeen ma ci boolee man danaa leen wax loo danaa leen wan lii sabab waaw su ngeen ma ci boolee danaa leen wan lii sabab comme xatte suleymaan wa daawuda wa isee kumaani fil harsi id nafasat fi ganamul qawmi wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Suleymaan loolu lañ jàng ci alquran jur ak jàmbur la ak ak jur la gu dugg ci toolab jàmbur yàq fa yàq bi métti lool borom tool ba dem kalaame ji ki ko yàqal ca Daawud alayhi salaam mm-hmm. Daawud dal de ne mm-hmm. dañoo nangu jur gi mm-hmm. jox ko borom tool bi dina ne xàtte bi nim dox mooy borom jur gi dem defari tool borom tool bi téye jur gi léegi fekk ba tool bi de melee na meloon soo mu jur gi am ak tos gi ak ngirtali borom teel ko na ne ba tool bi na meloon nag borom jur gi jël juram borom tool bi delloo tos ñaata boobu mooy sabab Daawud nag mu ne sabab at bi nii la muy baax nga Suleymaana xëy na waxoon ngeen ba foog ne yéen a jëlee waaye su ngeen du ngeen xamee ne day hmm. hmm. ah. hmm. leen yaa dawi samaili yéen borom jikko al adabiyet yey ko jub adab wasamool tey borom sàngara azahabiyeti yey ko jub wurus yéen ñi xam naan goo gi yéen ñi xam ay udaba ngeen xam leen ne an na waataal uhdiyati mm-hmm. naka teg ay cax mm-hmm. limtihaanil almaayati mm-hmm. ngir nattu dokku ñaw la mu ne uhdiya lu muy jëriñ mooy nattu fu ñaw ak nit tollu wa istihraajil xabiyati ak génne daxañteef alxafiya bu daa ci nëbbu ak lu ruqe woon feeñee ci mu ne jam cax loolu lay jëriñ hmm. wasartuha sartam nag hmm. pour mu wér nag hmm. anta koona mooy mu nekk daata mu masalatin de borom ak hemoo xaqiqiyatin ngay ko ju xaqiqa day fekk maana mi nga caxee ku dem ba settantal ci xaqiqam li nga cax dañ gis ne benn la ñu ànd wa alfaadin akibaat maana wiyatin ko jug maana te itam baat yi ngay jëfandikoo bi ngay tëral ujiye bi dafa hmm. war ay baat yu am maana hmm. wala tiifatin ak sew sew hmm. adabiyatin bay ko jub adab te itam dafa war lambu ay sew sew yu adab waa lu ci tegu gisuma ko fa mataan naa fa waxtu woo xamee ne dàqante na moom ujiya hadan na ma tawile yoon daxat mu ni du asaqata rotin rek ujiya buñ ci sàmmul lii comme lu daanu te amul njëriñ rek la. Mm. walam ta duxul te du mu tàbbi ak sabat sabat mooy ndabal gàtt. Mm. waa du am xiima la bëgg a wax. Mm. walam arakum gisuma leen nag. xaafastum ngeen sàmmante. ala hadil hududi ci dayal yi. wala mistum jàqewu leen yéen. baynal maqbooli ci diggante luñ nangu wal marut ak lu ñu delloo. waaw ne foofu la diine ci boppam yoon la am yoon woowu nag li ngeen di def da caa des a jaar loolu nag benn muy ñàkk a xam wala muy ñàkk a respecté xarit ne fa xul naa ñi wax la hoo ñaal ko ne ko sadaq te dëggal nga wa bil haqi te ji dëgg na tax te nga tudd ñu ne fa wax nga dëgg o jëm yoon la wakkil nattal lana ñaan ñu min lu baabi ka jaaji sell sax dañoo bëgg nga indil ñu ay aaji yoo xam ne yu aw yoon yu tegtale am xam-xam ak ki ko def dëppoo ak comme ni nga wax waa fit te na nga bëbbal alay naa ci nun min xabaar bi teg ci sa lëgg mm. sa ndox mu bëri mm. bi ballal ni si mooy ni ñu ëppee xam-xam ci lii mm. jëriñ ñi fa qaala mu ne avant lu danaa ko def de li ngeen wax danaa ko def de avant lu danaa ko def de li yàlla yartaaba ngir bu dee di sikk al mubtiloona way yàq yi way yazunnoo te ñuy jortu bi yee ci man azunoona njort damay bañ ñàkk leen a defal li ngeen wax mm-hmm. ngeen defe ne man dama tudd lu ma yëgul waaw ngeen boole ma ci mutasabihoona yi mm-hmm. bi ma lay sa indahum mm-hmm. dama doxee lu ma yorul loolu lay bañ ma to dama ko def de waaw afaalu danaa ko def de ah yàlla yartaaba ngir bu dee defik al mubtiloona yàq yi ñiy wax wa yadunnu ak bu ñu jortaat bi ci ma dunnun ay jot summa qaabala topp mu jàkkaarloot moom waaji naaduratal qawmi kilifa ak nit ñi moom gan nga mu jàkkaarloot kilifa gi wa qaal mu ne yaa man samaa bi dakaa'in fil fadli waari zinaati maada yumasilu qawli joon umid dabisaat yaa man e yow mi nga xam ne sama yëkkate goona bu bi sa kaayin ci ñëw fil fadli ci ngëneel waari sinaari bu ji tàkk ji daji béy mi nga xam ne salaw ñëw gi nga ñëw tax na nga am ngëneel ne ñëpp gis nañu ko ñu bëri nangu nañ ne yaa leen raw maaga ana lan yu maasilu dana mu hemoo qawli mm. wax sama mm. ne jooxoon umidda bisaadi mm. jooxoon xiif umidda boobu tabir na ko bisaadin ci yóbbal xiif buñ jox yóbbal ana ban baat nga mën a def mu xayata mu jox la ko mooy tawamir bii firi ay téere ay karne tawamir tawaqif mm. mm. ah, mm. mira konten na ko waaw mooy joxoon umidda tawa mooy joxoon mira mooy umidda bisaadi tawa mira tawaqif mira konten na ko xam nga loolu ma bayi ka mu ree ila saani jëm caaji ñaareel ji soda mu sadda mu reexal ko ñaareel ki wayli yaa zal ladi faaqa fadlan walam yudannisu shaynu ma mislu qawlil muhaaji wahrun asaabatu aynu yaa zal ladi ay yow yaa za ay yow kii alladi ki nga xam ne faaqa kowe na mu fadlan ci nga neel yow mi su ngeneel kawe ñëpp mm. ngeneelal ñëpp mm. walam yu dannisu te tilimalu ko soy noon benn ñaaw mm. te kenn mënu laa sikkalee dara maa ana lan mislu qawlil muhaaji mooy kem waxi aji jamante naan wahrun asabat aynu wahrun gannaaw asabatu boobu jot na ko mm-hmm. ay nun bët mm-hmm. a ah, gannaaw bu biir min jàpp mm-hmm. gannaaw bu bët jàpp mooy mataaxeen ay jamukaay wala jamu mitaan wala mataaxeen ñu ñu jam bu ñu xam man xoon mata gannaaw xeena bëtaleem na ko mooy saxrum asabatu xeen xeen waaw mu xama mu doon jàngee dama ko tàmbali woon a jàng gannaaw gi ma ne soo koy def su ko tuur rek dama koy jàng ba xam ko rek. ah loolu la jàng ko rek. ah xam nga dama réer. ah boo demee da ngay jàng jub rek waaye dajul mu tàmbali woon a jàng waaye dama dina ma dama gën bàyyi jami na. su ma laxaasa topp mu gendeeku. mooy mu rop. ak saali saa ji ñetteel ji. waan saa mu xaraf yaqul di wax ne man nataiju fikrihi mislu nuqudil jaisa ma mislu qawlika lilladi haajayta faadafa jaisa yaa man ay yow mi nga xam ne nataiju ngir tey xilaatam mislu mm-hmm. nuqoodi mu ngi mel ni ay kaye aljaay sa tiire way teew mu mm-hmm. yow ku ñëw may mm-hmm. gis gis nga maa ana lan mislu qawlik mooy kem wax sa lilladi ñaal koo xam ne xaajay te jamante daggihante nga ak moom ne ko saa dafa mm. saa dafa jaisa saa na mu mm. jaisa tan may mm. saa dafa fiiroo na mu jaisa tan may ana ban ban ngay mu xayata mu jox la maanaam yi mooy alfasila bi firi aji xaajale xaajal li ñuy xaajale mbir bi alfasila mm. alfa fekk na mu sila mm. tan may mm. may saadafa yaay tas alfasila alfa fekk na mu sila tan may suma adla topp mu yuqoolu ila rabin jëm ci aji ñeenteel ji mu yëkkati bopp bi xool ku ñeenteel ki waqaal mu ne ayaa mustambita alxaamida min luxsin wa idmaari alak sibliya ma mislu tanawal alfa dinaari ayaa mustambita alxaamid yow aji ballulu aji nëbbu yow mi mën a génne loo min luxsin ci jam ci cax wa idmaarin ak nëbbu mooy cax ba yow mi nga xam ne bu cax dikkee xaay nga ci firi ko alaa ma ne igsi lan hmm. mislu mooy kem waxtu jëngale hmm. tanaawal jottalekul hmm. mooy jëlal alfa dinaarin junay dinaar ana ban baat ngay mu xayada mu jox la tanaawal alfa dinaarin mooy haadiyatun aji jiitu mm. arab yi buñ leen rëbb badaw jiitu ñu ne haadiyatun kenn mm. waawa mm. haadiya haa jàppal mooy tanaawal diya tan diyay bakkan alfu dinaari mooy haadiya moom la su marama topp mu yëkkati alxamisa aji juróomeel ji bi basarihi ci gisam wa qaala mu ne yaa ayyuha dal almaci yaxu zakayil munjali ma mislu ah malakin yatan bayyin hudita wa ajjili xam nga ibnu malik li mu wax mooy uyuha dañ ko naatalee lu xam al mm. lu ñu rafaa mm. kon yaa ayyuhal almahayu loolu mm. buñ la ko jàngalee gis nga ne dëppoo nag la nga jàngoon ci ibnu malik mu ne ismul isaara ci nidaa moo topp harfu nidaa waaye nekkul ne moom mooy munaada dëgg-dëgg bantay dañ koy naatalee lu xam al lu ñu rafaa kon bu ñu noon yaadal almahayu danga xam li Ibnu Malik wax xamu mm. dana wut mm. waaye fekk ko amaali tere abu tere abu ali xaali yi mm. ci laa gisee mu man nga wax nga naata léegi lu am am nañu nafa waaw ah, waaye yaa ayyuha almahiyu wala yaasal almahiyu moo ne loolu lim jàngale waaw bu ma nangam ayyuha sa dañ wax naata léegi lu am am nañu nafa yaa ayyuha zal almaayi hmm. yow jile aji ñëw hmm. axu zakaayi kay borom ak ñëw hmm. almunjali ñëw guda aji maa mislu maa mislu lan mislu mooy kam waxta jënga ne ahmala xilyatan ahmala neenal na mu xilyatan takkaay wàcc na takkaay tagee ana ban baat ngay def mu xayada hmm. mu jox la ko mool hmm. mooy alxasiya muuraay hmm. alxa wàcc mu siya tan muuraay siya tan takaay alxa wàcc na mu siya tan takaay mooy alxasiya mooy ahmada hiriya tan li ma tax nangu mu ko wane jam su fekkoon jam yooyu di laa sukkandiku téere bu ma ko gisatul dafay ajama delluwaat ila tafsiril maqaamaati du ko jàpp gis nga bu ba yéen na nga biral hmm. ku dii te yàlla na jubalees la hmm. waa jël te nga gaawee biral gi hmm. mu ne tontu boo gaaw nag laa soxla su mastafata topp mu geesoo lifta saadisi ci wàllu aji juróom benneel ji wa qaala mu ne ko yaa man yuqassiru ammadahu xutaa mujaarihi wa tadoo ma mislu qawlika lilladi adha yuhaajika kufifu mm, mm. yaa man yow mi nga xam ne yuqassiru dana gàtt mm. hamma daa walis lefam luy gàtt xutaa mujaari yi jéegoy aji dawlanteeg moom wala tuqassiru lay wax bu dana gàtt amma daa walis lefam luy gàtt xutaa mujaari yi jéegoy aji dawlanteeg moom waxtaan bi xam hm. ñu dox di yow mi xam hm. ne ku bëgg a joŋante ak yow. ci saa xam hm. ne néew na doole duula moroomam. imaan la mislu qawli mooy kenn wax sax. lilladi ñaar ki nga xam ne adxaab mujj na yu haaji ka di ci tàggante ak yow. di jamante yow di daggante yow. ana ba ndax ma uf uf uf. uf uf febun uf uf febun. mooy mah mahin xàll. mah mah. ma ma hmm. ibnu Hisaam dafa wax ci xatru nidaa hmm. mu ne ma bi maanaam ukufu hmm. mu wax ci sudóoru saxaab ne ma bi maanaam in kafif mu ku lool lu tax ma ñi kaw maanaam ukufu te moom moo bind ñaari téere yi ah ibnu Hisaam dafa wax ci xatru nadaa mu ne ma bi maanaam ukufu mu wax ci sudóoru sahab hmm. ne ma bi man a in kësif hmm. te men lu raw gën a jiwu hmm. dañ cee xamee ne xatru na daal la jekk bind wala bind sudóoru sahab te gis ne su dee ko fegul mooy gën na uf mooy fegal fegal ak fegul bokk waaye teewul na loolu mu njëkk bind si xatru na daal summa xalaja topp mu sànni mm-hmm. asaabiha aji juróom ñaareel ji mm-hmm. bi haaji bihi ci xéenam mooy mu xool ko mu xool ko juróom ñaareel mm-hmm. wa qaal mu ne ko yaa man lahu fitnatun tajallat wa rutbatun fi zakai jallat bayin fa ma silta sa bayanin ma mislu qawli saqiqu atlaq dégg nga yaa man e yow mi nga xam ne mm. lafoo ñeexal na ko fitna tun xel mm. te jallat moom huññeeku na mooy leer na nañ mm. warut ba tun ak daraja fi sa ci ñëw jallat boobu màgg na borom xel mu leer mi yow borom daraja bu kaw ci ñëw ah ba yéen fa maa silta yàlla bul dañ nag saa bayaanin te borom biral ba leeralal te yàlla na nga fa leeral ma ana lan mislu qawli mooy kem wax sama ne assaqiiqu aflaq assaqiiqu doomi ndey mbokk ci ndey baay xarit aflaq ana ban baat ngay def ngay def mu mu jox la maana moomu mooy al axtaar ay mbambare ala ku mooy saqiiq taara naa dem na loolu la dégg alaxtar moom la dégg diga wu ne su mattan sata topp mu celletu loo asaamina aji juróom ñetteel ji waan sada mu sadda ne yaa man hadayiqu fadlihi matlulatul azha azhari gabda ma mislu qawlika lil muha jiisil hija maxtara fidda yaa man yow mi nga xam ne hadaya ko fadlihi dëri ngëneelam mat doolatul asaari lu ñu wis wisali tóor tóoram la ardatun aji naat la yow mi nga xam ne sa ngëneel bu doon tollu dër danaan mu ngi toll ci digg naa tàngo sàlla ay flóoram yëg nañ taw wis wisal ba yëpp ngi xool maana lan mis lu qawli mooy kem wax sa lil muhaaji ñaar aji jamante tili jaa kay borom xel mm. ne maxtaara fidda mm. maxtaara tannumu mm. fidda tan xaalis ana ban baat ngay war a mu jox la maanaam jumla bi mooy abariqa jamu ibriq ñu ne baraade ñu ne ndabal togg ibriq abariqa aba bañ namu riqatan xaalis mooy maxtaara fidda tan mooy abariqa Mm. aba bañ na ma beqatan xale benn suma hadaja mu sànni mm. attaasin aji mm. mu xool ko juróom ñeenteel gi waqaal mu ne ko yaa man yusaaru ilayhi fil qalbi zakiyi wa fil baraa awdih ma mislu qawlika lil muhaji dus jamaa yaa e yow mi nga xam ne mm-hmm. yu saaru def na junju ilayhi jëm ci moom mm-hmm. fil qalbi ci xol azzakiyi bu daaji ñaw mm-hmm. wa fil baraati ak ci fasaara aw de leeralal lana ñaan ñu maa an lan mislu qawlik mooy kem wax sa lil muhaaji ñaar aji daggante ne ko dus jamaa ana ban baat ngay def muqayada mu jox la maanaam dus jamaa hmm. dus dëggal hmm. jamaa tan hmm. ana ban baat ngay def mu xayada mu jox la loolu mooy taafi atun aji fay taafi atun te dëggal fi atan dus jamaa gis nga ko baax a baax benn moo ñaar fukki kii la jam la dafa indi fukk dellu indi at fukk mm-hmm. qaala wax na arrawi mm-hmm. ne fala man taha bi mu waxtee nag ilaya jës ji man xam na may ko mujj gi xasa mm-hmm. gësam na man ke baya sama ñaari ba sama ñaari bagg daf ma yaan wa qaala mu ne ma yaa man lahu nukatu lati yusdil xusuma biha wa yankut antal mubiinu fa qul lana maa mislu qawli xaal yaskut yaa man e yow mi nga xam ne la hoo ñaxal na ko annukatu ay sew sew allati dana doy yoo xam si dana mu jàqalooye alxusoom way xuloo yi bi haa ci ñoom wayan kutte mu de leen ci yu sew nga garde mm. yoo xam ne ci nga gañee anta yow almubin yadaa ji biral mm. dañoo laaj ni yaa koy biral to mm. qul waxal la na ñaan ñu waxal mm. maa ana lan mislu qawli mooy kem wax sama ne xaali ya sama nijaay uskut noppil ana ban baat ngay def mu xayata mu jox la nijaay noppil <laughs> dégg mooy xaali sax aji sell xaali ay yow sama nijaay mm. te xaali da ngaa xam yawul ne yawul mutakallim bi mm. ah sax noppi mm. boobu la fukki yaa ngi noonu ñu dem tuuti ba ji ba ji ba ji ba ba toll ci utu muy doole su ma xaala topp mu ne xat an hal tukum naan daal naan leen naan bu jàkk de waaw hal tukum ma yéexee leen lii mooy bu jàkk bi def bi ñëwagul mën naa joxe dale itam waaye hmm. surtout bu ngeen soobee an awoon la kum ba ma sunguri leen hmm. xalal su kum ma sunguri leen su ngeen bëggee ma doole leen hmm. yéen yaakaar naa bind kat yi du ñàkk luñ ci wax waaye surtout an awoon la kum xalal su kum gis nga saa buy jumtukaayu sarta dañoo wax di xasaf mafoolam war nañ koo xamee ci jawaabam kon wa in sirtum halaltukum dayoon na waaye jël nag ana walakum di ko tawil masdar fu mu nekk ma xoon saa te saa ànd ak jumtukaayu soxta kooku daal miinuñu ko en tant ki war a doon ma xoon jawaab mën na koo firi rek noonu la saa war a demee ah saa rabbuka walaw saa allahu la hadakum walaw saa rabbuka ma faaluhu yemma xoolu saa diku kan waaw noonu la demee de mm. la tadxulunna al masjid al haram mm. insha allahu mm. insha allahu duxulakum ay di kudde ah, loolu leen xam de ma moolu sa feeri saa daal bu jumtukaayu sarta waa dañuy faral di doyloo jawaab rek jawaab lañ koy xamee xanaa lenn rek mu doonee bi ak ma jawaab bi ak ma foon mi horoo tuuti de jaam ba jawaab bi mën na firi ma foon dag du loolu rek Hmm, hmm. wa hadafu maamula sartin misla sa maalam yakun taaliqu mustafisa jàng nañu ko ci bayaan ma tax li daal man yaakaar naa ne ñi def naqaru danga am luñ ci wax yaakaar naa ko man nag jàngale rek moo ci sama wàll daan dund ma di def naqaru kenn su ko defee dama ji yeete rek ak utumay bind bu def naqaru kenn waaye yaakaar naa ñi def naqaru du ñàkk luñ ci wax ah dégg nga wayin siitum bu leen soobee ana wallakum ba mu sungali leen halastukum mu sungali leen qaala Haaris nee na faal jaana loru loori lahabul xulali takkatu maru xonnañ ila tisqaayil alali jëm ci sakko sakko nandulu sungali xam naa ñun waxtaan wi ñàkk cee doyal tax ñu ne ko dool yaatal waay bu leen neexee ma dolli ñu ne ko dollil faa jaana loru looñu lahabul xulali takkatal maru kondañ mooy maru takk ci la si naa la di jëm ci sàkkoo naan naan naan lu sungri jëm ci naan lu sungri fa mu ne lastu déet man kaman ma di koo xam ne yestasiru dana mu daalu mooy beddee koo ala na di mi wëlil aji naanu xaarem man du ma kuy nëbb la xam xaritam de da ko jëriñoo moom kenn la tuddeen man kaman may ko xam ne yastaasiru dana mu daalu mooy dana beddee ko lam xam ala na di mi ci aji naanu xaarem wala wi man du ma koo xam ne sam nu woo diwam fi adimi nekk na ci der ci deram masal la ci koo xam ne lim xam bopp ba la ci mën a defal dara du ma ko xam ne mm. lépp loo ci mën a def mm, mm. masal la koo xam ne bopp ba la mën a defal dara loolu du ma ko lu ma am rek am naa ci jëriñ bi baax na ko kii ñëw gaañu ne ko boo ñu dollee jël. Mm. ma ne mën naa ha dolli. Mm. su ma karra topp mu hakkaan halal awwali ca ku njëkk ka. ku mm. fam dalee woon la dalee haddi. dem ca ku wa qaala mu ne ko. yaa man ida askalal muhamma. jalatu afkaarahu afkaarahu daqiqa. in qaala yawman lakal muhaaji xud tilka maa misloo xaqiqa yaa man yow mi nga xam ne ida askala bullantee almuhamma lu ñu jame jalaatu feeñal ko afkaaruhu ay xelaatam ak daqiqati yore way sew yow mi xam ne su sa gis-gis bu sori mën nay tax leeral ko in qaala bu waxoon yawman bis hmm. bu waxee yawman bis lakka ñaal la almuhaaji aji jamante hmm. ne la xus jàppal tilka hmm. jëlal loolu maa ana lan misloo mooy kemam xaqiqatan ci dëgg-dëgg ana ban lisim nga xam boo xam ne soo ko defee muqayada daf lay jox maanaam xus tilka mooy haatiika lale kii ismu di saaray jigéen la hmm. nga jokk ci kaaf hmm. ci catli hmm. indi haa u ci bopp bi muy haa tiika haa jàppal tiika lale moo kustilka ya bokk boo ko defee mu xayata loolu la lay jox su ma sanaa topp mu leem jiida hoo loosam ila saani jëm caaji ñaareel ji mu geesu ko ñaareel wa qaala mu ne ko yaa man bada bayaanuhu an fadlihi mubayyina maada misaalu qawlihim himaaru waxsin zuyina yaa man e yow mi nga xam ne bada feeñ ne bayaanuhu biralam mubayyanan daa ji leeral han fadlihi ci ngëneelam yow mi xam ne saa soo leerale rek ñu xam ne borom ngëneel la qawlihim mooy kem wax seen jañu naan wax sin suyi na wax sin mbaamam jaaxal la suyi na rafetalees na ko ana ban baat ngay def muqayada mu jox la maanaam ximaaru wax zuyina mm-hmm. mooy farazin mm-hmm. farazin mm-hmm. fara na ko njaaxal wala mbaamam njaaxal zina rafetalees na ko farazin jamoo la ma seetlu ko aji summa aw haa topp mu junju mm. ila saalisi jëm ci aji ñetteel ji mm. bi laxdihi ci gendeeku mm. wa qaal mu ne yaa man gada fi fadlihi wa dakaihi kal asmai ma mislu qawlika lilladi xaajaaka an fiq taqmai yaa man e yow mi nga xam ne xadaa mujj na hmm. kal asmaay yi demel ni asmaay hmm. fi fadlihi ci nganeelam hmm. ak ñawam yama mel ni asmaay ci nganeel ak ñaw maa ana lan mislu mooy kem wax sa lilladi ñaal koo xam ne jamante naag yow ne ko anfiq taq maxi anfiq dundu leen mooy jëriñeel soo ko defee taq ma danga daan mm. danga daane mm. mooy mun taqim aji bugle mm. mun dunduleel mooy gàddul coonoom nit soo ko defee taqim danga daane suma xam la ka topp mu rob ila raamee jëm ci ñeenteel ji waam sada mu dalde sadd mu wax ne yaa man ida maa hawisun dajaana rasalama mada yumasilu qawli itamsiri hamudama yaa man ay yow mi nga xam ne ida ma hawisun bu kukkee jafe-jafe bu lëndamee jafe nga firi haale dajaa anaara mu leeral salaama wa lëndama yow mi nga xam ne bu jafe-jafe nga leeral lënt ma maasa ana lan yu maa fi lu dana mu yemoo xawli wax sama ne istansi riixa mu daama istansi fóonal riixa mu daamatin xañ ak sàngara ana ban baat nga mën a def mu xayata mu jox la maanaam istansi riixa mu daama mooy rax raax bii firi xàll boo yaatu xàll boo yaatoo yaatu fii ma misli saari tërsi rax raaxi rax foonal hmm. raxaan sàngara hmm. mooy rax rax hmm. rax foonal raxaan sàngara summa aw mada topp mu rob mu mel xat mu ree ilal xaamisi jëm ci aji juróomeel ji mu muñal ko juróomeel gi waqaal mu ne ko man tanazzaha fahmuhu an an aw yusakka ma mislu qawlika lilladi adhayuha ji rabti halka yaa man ay yow mi nga xam ne dana saha sellana fahmuhoo déggam xana yu rawiya walis muy xelaat ayo sukka walla muy sikk yow mi nga xam soo waxee doo am looy sikk maa ana lan mislu qawlik mooy kem wax sa lilladi ñaal koo xam ne adha mujj na yu haaji di jamante mm. kuy jamante yow mm. nga ne ko halka xatti mm. muural halka way halaku yu bari mooy muural ñi de ana ban baat nga mën a dem mu xayata mu jox la maana moowu mooy sumbóor saat nuun baa waawaa mooy garab ak tàndarma gu sax ci barab moom wala nit koo xam ne fa mu nekk moom kenn fa nekk taxu faa mm. ne ma sum boor mm. sun ñoŋeelal mm. moo xëtti benn la buuran ay way xalaku moo xalkaa benn la selu waawa su ma aqbala topp mu jublu xibala saadis ci wàllak aji juróom benneel ji saddane yaa axal fitnatin lati hmm. baana fiha kamaluhu hmm. saara billayli muddatan hmm. ayu shay'in misaluhu yaa axal fitnati ayow borom xel allati borom xel mi nga xam ne baana bir na fiha ci moom kamaluhu matam yow mi am xel moo xam ne wane na sag mat waa saara dox na bi lay di ci guddi muddatan ab diir hmm. dox na ci guddi ab diir hmm. ayu sey ana lan la hmm. misaalu woo mooy kemam ana baat bu war a toll la mooy sarahin bii firi ay tilli xàll jamoo sarxaan saraara ñaan na mu xiinan ab jamono mooy saara bi lay di mooy sara xiinan mooy muddatan mooy sarahin day la su ma naxaa topp mu jubale mm. basarahoo gisam mm. ila saabian jëm ci aji juróom ñaareel ci mm. wa qaal mu wax wala waan sada wa qaal mu wax ne yaa man taxallaa bi fahmin aqaama fi nnaasi suuqa lakal bayaanu fa bayyin ma mislu ahbi faruqa yaa man ay e yow mi nga xam ne taxallaa takkaayoonam bi fahmin ci dégg gu xam ne aqaama taxawal na finnaasi ci nit ñi sooqowoo ay peram wala ay wala sooqowoo jaam yow mi am dégg gu mat la ka na la albayaanu biral ba bayin biralal maa ana lan mislu kem mooy kem waxta jënga ne mm. ah bi faruqa ahbib soppal faruqatan hmm. ku ragal hmm. soppal ku hmm. ana ban baat nga mën a def mu jox la maana moom mooy miqlaq miqlaq xandeel lu ñuy foyee la soppal wa miqa yem yemiq laa an ku ragal mooy ahbib faruq su ma topp mu jublu xasda saamin ci wàllak aji juróom ñetteel bi hmm. waan sada mu saddane hmm. yaa man tabawwa dir watan hmm. fil majdi faaqat kulla sirwa ma mislu qawlika aati ibriqan yaloohu bi xeyri orwa dégg nga yaa man ay yow mi nga xam ne mm. tabaw waa wàcce na mu sirwatan mm. njollox toon mm. fil majdi ci tedd nga faaxat lul kowe na kulla dirwatin bépp njollox toon yow mi ci daraje bu xam ne moo kowe yëpp mboolem daraje yi maa ana lan mislu qawli mooy kem wax sa jëngane axti joxeel ibriqan ibriq en ko bire barada waaye noonu kay hmm. lay la yelloo mu feeñ bi xeyri xorwatin ci lul ngëbukaay hmm. nga ko jox ko ibriq boo xamul ngëbukaay mu us hmm. ko ne us joxeel kuban kaar kooku mooy ibriq boo xamul xorwa mooy us ko mooy us ah. muy sotti us joxeel ko man ka wala mu xaya dabaat boobu la su maftasama topp muy nag ila taasi jëm ci ay juróom ñeenteel ji mm. waqaal mu ne mm. yaa man hawa husna dirayati wal bayaani bi xayri sakki mm. ma mislu qawlika lil muhaajisi l hijaayi sabru milki yaa man yow mi nga xam ne xawaa làq na mu mm. xus na diraayeti rafet a xam mm. wal bayaani ak rafet ak biral mm. bi xëy sokkin ci lu du sikk maa mislu xawlika mooy amaana lan mislu xawlik mooy kam wax sa lil muhaaji ñaal aji jamante si sa kaay kay borom ak ñaw ne asawru milki asawru nagu njaaxal bi. Hmm. milki sama moomeel la. Hmm. ana ban baat nga mën a def hmm. mu jox la maana mi. mooy allah aali jamu lu'lu'in ay wuru sululu. allah ga allah a nagu njaaxal bi. lii ñaal na ma. mu asawru milki. ña bokk. gis nga topp mu jàpp nag. bi jumee ci kurpeñam mooy loxo gubam xalaa mm. rut nii ci sama lafi sama gub mm. man na dama xaw a pañe waxaal mu ne mm. yaa man sama bi su xoobi fitnatihi fil muskilaati wa nuuri kawkabihi maada misaalu safiru jax falatin bayinhu tibyaanan yanummu bihi yaa man yow mi nga xam ne sama yëkkate koo na mm. bisu ko bi fitnati yi ci leeru xolam mm. fil muskilaati ci yulanti yi mm. wa nuuri kawkabi yi ak leer ak bidiwam masa ana lan misaalu mooy kem waxta jënga ne safiiru palatin mooy suuf léeg tuñ ana ban baan nga mën a def mu jox la maan suuf léeg bayyinhu biral ko man ko biral tibyaanan ak biral waxal yéen mu dara mu feeñee bii ci moom mooy mukaasafa masdar kaasafa mukaasafa wuñeeku mu kaaw mooy wëliis ilaa mu kaan watan mooy wëliis safatu mooy tuñ waaw mooy safiru jaxfala su ko defee fukki yaa ngi xaalis ne fa qul naa ñu wax la ko ñaal ko ñu ne ko alas naa déet ñun min xëyli haadal maydaan falama atrabna xaala xaalis ne falama atrabana ba mu ñu bégloo xeena bi maa ci li nga xam ne sami sami naa bu dégg nañu ko wa talabana tem sàkku ci ñun mukaasafata maanaa wuññi maanaam ba mu waxee fa kon cax yaa ngi yéen lay déglu xul naa wax nañ la wa ne ko hmm. eh, las naa déet ñun min xëyli haasal maydan ñu ci lefi fas yi mi le lef ne ko ñun lii daanaka taxul ñu am ci mënoore hmm. min xëyli haasal maydan ñu bokk fas yi mi le lef hmm. eh, wala lanaa ñaaw lu ñu yeddaani kattan bi xalli haadihi noqadi dañ ci pas-pas yi eh, lu xam ñun mën nañ ko leeral fayin abante boo biralee daal ah maanaam su ñu teewlu su ñu ko waxalee daal. Hmm. su la neexee nga ne nakam. ma hmm. ne waxee li ma leen wax ngeen di wutale ci woon ni li ñu ma ne la. waaye hmm. katam te boo ko nëbbee it nag. ah moom te nga jàkkaloo. soo ko nëbbee tamit nag. ñu lënd nga ñëw bàyyi rek. waaw baax na boobu léegi daal yaa moom sa xam-xam. dañ la gaaral ne soxla nañ ko. waaye fa ñu la ci ko. ah soo ñu ko waxalee daal. yoo xam ne jëriñ bi ñu rek. Hmm. waaw ba ñu ko waxalu fi nag. Hmm. ah ñun ñooy def si la si rek. Hmm. waaw ndax dana leen ko waxal du leen ko waxal. waaw ginnaaw ñu ne ko nag daal waxaan ne ma ne Fadal la léegi nag. ñun daal yëf yi añ ci sa loxo. loolu nag kuñ ko wax. ah ci yow la desee. ah bu desee ci yow nag. yaay seet nooy defee rek. waaw ah, ndax yëf yi añ ci sa loxo la. loolu ko wax ah ci yow la desee waaw bu desee ci yow nag ah yaa desee nooy defee mu ne fa dalla mu sax yusaawiru de diisu nafsayhi ñaari bakkanam ñaari xelaatam muy seet wàll ak ak wàll ak ndax ñi hëpp nañoo xañam ndiit wala jar nañoo waxalam ndiit ki jaru da waxal hmm. ko waxal ko baaxut hmm. waaye ki ñu war da xañ hmm. xañ ko itam baaxut wa man manahal juhaala elman ataahu xam ne ñoo xam ne boo leen joxee xam-xam sànq nga xam-xam ba ndax yeewuñ ko waman mana al mustawjibina mm. faqad zalam waaw am nañu boo leen tere mm. tooñ nga mm. na joxoo ko borom waman mana al juhala ilman ataahu waman mana al mustawjibina faqad zalam ndax ñi nag ci juhaal yi lañ lañ bokkam de du jar may leen jox wala mustawjibuuna lañ ku ne ñoo xañ xañ na xalaat bi loolu la woon xañ na wa yuqallibu muy jàllar bi xit xayhi ñaari banti may saram léegi daal mu ngi settantal hatta haana ba yomb batlul maahooni joxe njëfandu mooy joxe ndimbal alayhi ci moom maahoon ci cosaan njëfandu lay firi mooy liñ sàkku ci moom mu nanguñu ko jox aqbala mu jublu hiine xaju ca kaw mooy bu ma ne ca kaw numéro dix bi ca kaw numéro dix bi mooy bu mujj bi rek benn tee rek moo ko fa rek rek أثار وبهر am na ismu jaamee li mën a fayal bayt mu jamono bi hmm. baat bi muy egg. loolu muy jeex moo tax. waaw li mu jaayee kalbaasi. wal xibri. wax naa la maa ngi la ko waxee moom ñu ko bëggee jëfandikoo loolu la ñuy bëggee baat bi muy jox noonu. taxaana ba yomb parce que loolu maa wane joxe njëfaru mooy joxe liñ soxla alayhi ci moom fa aqbala mu jublu hina izin ca boobale al jamaati ca mbooloo ma mu ngi dengi dengi daal ci nangu ak bañ gannaaw bi daal mu far nangu wa mu ne yaa ahlal balaagati ayeen ñooñ balaaga wal baraahati te de ñooñ fasaha yéen ñi am fasaha am balaaga tuallimukum kasi naa leen xamal maa loo xam ne lam sukkoonoo nekku leen woon temps la mën a mm. de danga leen waxal lu ngeen mos a dégg mm. waa su allimukum xesi na leen xesi naa leen a xamal mm. maa loo xam ne lam sukkoonoo nekku leen woon temps la mën a di ko xam de wala zanantum te jottuhu leen woon ne ànd ak kum yéen. Mm. tuuxaan la def na leen ko xamal. foofu la woon foofu foogatu leen wane. Mm. kenn mën na leen a jàngal. Mm. te nag wa fawqa kulli zi ilmin alim. wala zanantum jotu wu leen wane ànd ak kum yéen tuuxaan la mu def na leen ko xamal. faaw ko nangeen ngeen takk. alayhi al awayata ndab yi. kon su ma ko waxee. na ko téye ci seen xel bu bu mu leen rëcc mm-hmm. ndax dul ku ngeen dajeel mm-hmm. mu mën leen koy waxal mm-hmm. warab yu doo na ngeen dëralee bii ci moom arandiyata penc yi ngeen taaralee ci seeni penc bañ mel ne ay tooli dër lii la wax dégg kaan daal li li muy wax nañ ko bàyyi xel bu ëllëgee it nañ ci mën a jëriñu suma axada topp mu xarab fi tafsirin ci firi mu xam ne saqala pompeena bii ci moom alasaana xel mu firi affaire bi ba lépp leer wastafraxa te bu sàkkoo féexale mooy jeexale min hu ci am alasaana lafiti mbuy wala poos yi waaye ba mu leeralee xol yi de yekk na poos de wastabraxa te mu sàkkoo sottee mooy fiyo ka dindee mooy sottee min wi joola daana poti xataa aadat ba mujj ala faamu déggi te mooy xel an wara di gën a leer min somsi jant wal ak maam mujj loxoy mbubb yi mooy poos yi ka an daana këmir lam tax na xawma luñ woon bil am menn xel deseetul benn lënd hmm. waaye benn poosi dara desatu ca daal hmm. fi daal la ñu jàpp hmm. wala ma xam ma ba muy téwoo nag bil ma farri ci daw su ila laajees ko xanil ma xarri ci soxuwaay ba mu bëgg a jog nag ñu ne ko ah yow de bëggoon nañoo xam foo ah ndax ku ni yow. dañoo am moom soxla. ëllëg ku la soxla. man laa seet. bëggoon nañoo xam daal foo dëkk. wala maa xam ma ba mu hittewoo bi ma farri ci dem. su yéla laajee su anil ma xarri ci saxuwaay bi. fatana fasa mu daal di nokkat. Mm. kama tata naffasu ni kii nokkatee. asëkool aji ñàkk doom mooy ku bëri la doom yu far mm. mu nokkat nokkatinu ku am lu ko métti mm. su maan saa topp mu xaraf yaqul di wax muy wéy naan mm. kullu siabin liya siabun wa bihi rab haya rahbu anni bi sarojin mustahamul qalbi sabbu hiya ardil bikru wal jaw walladi minhu almahabbu wa ila rawdatiha alghan naiduna rawdi asbu ma halali ba'dahul wun wala dawda wa hasbu kullu siyan bin bépp yoon mooy yoon wa jaar ci kaw doj mu ne siyan bu siyan bun yoon la liñaan amul ci àddina mm. foo xam ne moo fay dem mm. ne lay dem mm. wala fu xam ne manee huma ko déedéet ku lu sien bin wépp yoon sien bun yoon la lii ñaal ma waramee te suma wàccu waay rax bun aji yaatu la bii ji mu mën a doon rek man manee naa xayra an nii ndare man nag mustahamul qalbi ku ñu soppaloo xolam laa hmm. sobbun aji soppalaa hmm. bi sorojin ci soroj hmm. waaye soroj daal mooy dëkk bi nga xam ne mu mën a dem ca àddina it suma xel di ko deg waa xayra an nii ndare man mustahamul qalbi ku ñu soppaloo xolam laa bi sorojin ci soroj sobbun aji soppalaa koy hiya moom sarooj ardi mooy sama suuf al bikru sa mooy suuf su ma njëkk a dund ci àddina mooy fa ma juddoo fala jeexale ayamu sabibati wa siba mooy ñaari marhala yi dàq ci marahilul suba fu ma mën a suma xel du ko bilaadun biha niita hmm. alayya tamaimi hmm. wa awwalu ardin massa jildi turabuha hmm. ah, bilaadun biha niita alayya tamaimi wa awwalu ardin massa jildi turabuha mu ne fañ ma daan takkale gàlla ji gune waaw ah, suuf si nga xam ne moo njëkk a laalanteeg sama yaram ci àddina foofu mu dàqal gune waaw ah, bilaadun biha niitat alayya tamaimi wa awwalu ardin massa jildi turabuha selo ni bu baax moo tax hiya moom albikru a ardi mooy sama suuf albikru la dee xeeg wal jaww tey jaww alladi ji nga xam ne min hu ci la tukkee almahabbu huppu waay way la rawdatiha jëm ci dërëm mm-hmm. aw xan naa yi budaaji naat mm-hmm. as boo lay soppu mm-hmm. doona rawde walis yeneen tooli dër xamoon benn tool dër boo xam ne gis naa fa lu fees sama lu mooy rek toolu dër ba moom la toolu dëri moom a dàq xam way la rawdatiha jëm ci dërëm aw xan naa budaaji Hasbulay nimse dana raw maa xalaat neexut lii ñaxal ma mm. bandaxa ci gannaaw sorooj mm. xol woon aji neex mm. yi nit ñi bànneexoo ba deje kontaan man moo joxe gannaaw sorooj ba léegi dara ci neexut ak man wala saw sabat te neexul ak man itam hasbun mm. jënd mm. fa in na aytum mm. asabal qalba na yukumu su ngeen soree te nag sori sama xol da koo mel ni perte guñ ko jam la wa in dana darukum kuntum lana sakana su ma leen jegee nag yéen rek yéen a mën a doon samay dal soro it mooy fu mu rek mooy fu xam ne mën na fees sama bët su ko mayee du feneen dégg nga dégg nga baax a baax yo muta na bii do xam ko muy tàggoot wa inni hanka baada radin la radi wa qalbi an fuadika mm-hmm. an binaika mm-hmm. xayru xaadi mm-hmm. maa ngi lay tàggu gannaaw ëllëg laa dee xëy xam naa jëmm ji nag moo xëy waaye xol moom man da bawoo dëkk wa inni anka baada gadin la gaadi wa qalbi an binaika xayru xaadi ak fu ma mën a jublu rek xamal bu baax ne rek sa soppe laa bu hmm. ma mën a nekk ci àddina hmm. xamal bu baax ne sa gan la yaa may ganale hmm. mooy fu ma mën a def li nga ma jox rek lay jëriñoo waaw muhibbuka haysu mattajaha rikabi wa dayfuka haysu kuntu min al biladi fu ma ne wéy la ku ma ne wax la ku ma ne wax dëgg la <coughs> waaye mu ne ma dee fu ma mën a nekk sa rek alxadrami dëkk dëkk xayrawaan mu ne mu ne dafay jooy xayrawaan daal li muy ñaan daal mooy tawi xéwal daal ni rongañam bi wàccee mm. tëxa dakk noonu la tawi xéwal saxe xayrawaan noonu mm. waaw mu ne moom daal loolu lay ñaan mm. waaw dëkk la boo nekkee mm. dafa mel ni yaa nga àjjana mm. ndax suuf si comme misk la mm. jamra yi comme jawhar la loolu la wax de jannati turbatuha miskiyatun wa hafaha jawhariyatu wax na ko de dégg nga qaala raawi xaalis wax li asaabi ñaa samay àndandoo hmm. ne leen haada kii abu saydin abu saydin la asoro jiyu kay ko diw soro ma leen ki abu saydin hmm. soro hmm. ji la alladi ki nga xam ne adna mulahihi li gën a suufe ci ay waxam yu xorom al ahaaji mooy jëm ki lim yor génnewu ci dara lim fi wane nii moo gën a tuuti ci lim man. solo ji la. kii lu ne mu ngi ko yor lim yor génne wu ci dara. ah lii moo gën a tuuti ci lim man. waaxa su ma xara. asifu di melalal lahum ñaa leen. xus na taw siyati rafet ak njamalam mooy ni muy taarale wax. wan xiyaadal kalaam ak xamatu wax. li ma siyati ci coobare. mu commencé leen naaralal. ni nga xam ne noonu la amee manoore ci wax hmm. ak ni nga xam ne noonu la ko yàlla joxe balaa hmm. su ma tafatu topp ma geesoo hmm. fa isaa bihi yëguma lu mooy moom rek xat tamara tëm na wana amu buur bi maag li nga xam ne xamara làq na ko mooy jël na ko ci naxe man daal faa geesoo rek ndeki dem na maa ngi toog di waxtaan foo ne ñu ngi am gan geesoo rek digi jot naa jël lañ ko jox ko dem faajim naa ñu yéemu mm. même maa ci li nga xam ne sanaa def na ko mm. it waqaa ba mu tàbbee wala mm. yéemu ci nim defee walam nadre xamuñu ay na sakaa fan la jublu wa sakaa ak fan la jublu sakaa mooy wàll ci suuf mooy fan la jublu waaye sax na boobu insha Allah